Sidi Lamine euh, Sall, euh, membre du PDS euh, de Anne. élection euh, falu la te bépp koo xam ne bëgg na falu ak ka bëgg a toog day xool naka lay def ba toog ba def lu ko mel euh, aujourd'hui comme euh, Macky Sall mooy réew mi bëgg na deuxième mandat dafa toog xalaat ay experts yu taxaw ñoo xool ni ko naka nga war def ba am deuxième mandat ay études hein. c'est des études ñu ne ko ku Karim ku mel Khalifa Sall ñooñu fexeel ba ñu ñu maintenant comment faire il fallait c'était c'était c'était un travail qui date pas d'aujourd'hui ça fait longtemps parce que ba mu faloo rek la xalaat deuxième mandat c'est pourquoi aujourd'hui ñu ñu egsi fii egsi fii mooy lan soo xoolee hein, ba muy def euh, amendement kii def hein, revue revue euh, constitutionnelle ba ñu revoir euh, constitution hein, un kii bi nu mu tuddi fichier électoral bi pas ñu jëm si wàllu élection dañoo wax ni carte lu mel ni carte il faut être électeur pour dem élection voilà loolu moo n'est que président il savait que là, ils pouvaient bloquer Karim. C'est ça, ils ont utilisé ça. Hein. Donc Karim a carte électeur. C'était ça, c'était prévisible. C'était ça. Nous, on savait aussi. C'est pourquoi on a insisté à ce qu'on n'avait pas un plan B. Parce que c'était à nous pousser d'avoir un autre candidat. Or que, en politique, c'est pas ça. Il y a le charisme, il y a tout ça. Karim, aujourd'hui, il pèse lourd. C'est pourquoi on a insisté pour qu'il continue à être notre candidat. Maintenant, en politique, jeu d'échec là. Dubaï, nous avons ñu malmené la nga taxaw non on accepte c'est pourquoi aujourd'hui conseil constitutionnel on attendait ça on savait que aujourd'hui du jàll maintenant le combat il faut faut continuer à le faire mais aujourd'hui loolu day yak démocratie Sénégal su nekkee xam nga soo le Côte d'Ivoire le mel Côte d'Ivoire lan y a lan problème quand il y a indee affaire ivoirien euh, ivoirien te ki fa ivoirien pour source pour nga ma il y a un problème. xam nga a mu un problème lay ko maintenant moo tax loolu baaxul si aw un problème. Euh, soy dem élection bul jël di wax diway dem ak di warul dem loolu baaxu sa aw réew réew boo gis mo am problème loolu la maintenant pouvoir nag pouvoir nag nit nit nit dafa bëgg pouvoir pouvoir c'est partout hein. foofu foo mënti dem moo tax ñu ni démocratie parce que nit soo ko bàyyee moom rek il veut continuer il veut toujours continuer à gérer moo tax démocratie ñëw moo tax ñu ni deux mandats parce que soo ko indil woon nit ñi day continuer rek parce que pouvoir mooy la tey Macky Sall benn benn ak la gis yoonam nekk si mooy am deuxième mandat il est prêt à tout pour pour avoir ces deux mandats maintenant moo tax mu taxaw loolu dama ni ku la teree def dara nga tere ko def dara on nous a tey ñëpp xam nañ ni parti au pouvoir ñoo ñu tere dem élection lu mel PDS ak parti bi toll xam ni depuis Ablaye Wad, ça fait depuis soixante soixante comme soixante ba léegi ñu ngi dem élection parti bu toll noonu nga ne ko dem élection loolu ñun waruñu ko nangu parti lu taxaw élection mais aujourd'hui Il y a deux facteurs jappelé kenen mu dem aussi suñu sur le terrain empêcher les ñom aussi ça c'est possible hein. mais nous ko d'une manière deux xamni dal la dalal xam nga lu bu leen génn yaa ngi koy dégg bu leen organisation yi euh, meeting yi bu dem dem euh, woo leen opposition yi woo leen bu opposition yi woo su leen dem lu ñu leen woon dem mais mais man principe boobu ñuy waxee noonu man lu ma jaaxal la partout dans le monde dem les gens marchent en France mais gilets jaunes marchent. dem dans les syndicats ils marchent. pourquoi aujourd'hui en tant que politique nous droit le droit dem ak militants bu leen